yàlla bu baax a baax te jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan ngërëm borom subhanahu wa taala mu wàcc ci suñu mag ñu baax ni jiitu di sant yàlla bu baax a baax ci jëf yoo xamee ne e, rëy na lool te yàlla e, jagleel na ko ñun ñii fi nekk tey jii e, mu mel ne noo fi bokkoon daje تجون خيري كي دمالو يالا أفوك جابلم مي خير وخامن دين كولون تك نجير لان نجير دار القرآن الكريم مي وخي يالا سبحانه وتعالى مي لنغ خامن مو جنت لب يالا دوغلنا الحمد لله بوكي دفنا نبسيب ما شاء الله داري لب سنتنا Euh, mel melakaan nii tubaarkàlla ku ko gis xam ne wax dëgg yàlla meloo na melow daara dëgg yàlla di euh, ak cant la mu mel ni alquran nag moom lees ko defar rek doy yeeyoo na ko ko defar rek doy yeeyoo na ko euh, kon bu fekkee ne ay nit dañoo jóg jëf jëf ju rëy nii waaye itam teg ko ci loxol koo xamee ne itam ku yaru ci alquran la nàmp ko te di ko dund di ko dundal eh, loolu sant yàlla bu baax a baax seen jëf réeru yal na yàlla fay leen ci tey ak ëllëg te nag sallallahu alayhi waxoon na ci sunna ne képp koo xamee ne eh, <clears throat> def nga lii eh, sab yool du dog mukk donte ëllëg jóge nga fii sab yool du dog te mooy bokk na ca defar birëb boo xamee ne dañ fay daje di fa euh, jànge alquraanu karim wala dañ fay daje di fa julli waxtu muy euh, bënn boo xamee ne da nga nit ñi di daje di jëriñ ci ndox wala xam-xam boo xamee ne da nga koo bàyyi woon euh, <coughs> da nga koo nit bàyyi ko bi mu di ca xamle di continuer ak di ca sukkandiku di jaamu yàlla walla doom ju baax joo xamee ne da nga ko fee bàyyi mu di la ñaanal sa ginnaaw lii moom nit ki bu fi jógee itam léppam mën naa arrêté waaye tiyaaba yooyu moom faw day continuer di dox euh, kon lii mbir la moo xamee ne ëllëg ci si biir alhamdulilah képp ku ci saw ñàkk demoon euh, doon nañ ko wax fii ci jataay bu jëkk ba dañ koy fon ne woon Euh, la kenn ku nekk fexe ba def ci dooleem def ci àllam def ci xelam def ci xalaatam def ci yéeneen ci rafet mhm. ndax bu ëllëgee mu doon loo xamee ne du dox bu foo mën a nekk mu dina fa fekk ëllëg luñ saa bu fi tout tànk yi dajee ba génn mhm. euh, nga bokk ci ñuy am ci tiyaab yi mhm. euh, loolu kon fa lilahi alhamdu gannaaw yàlla dogal na lépp sant na ñu bokkaat sant yàlla baax a baax a baax soxna jaara mi nga xamee ne ginnaaw yàlla moo wane lu tax ñu def lii moo wane lu tax lii am ndax bu fekkoon ne dafa ñëw eh, yem ci eh, ak jaamu yàlla am comme ñëpp ni ko ñëpp di defee kon lii mën naa waaye dafa ñëw feeñal li mu naam te nekk ci xolam di ko dund wallaahi di ko dund mu fas yéene dundal loolee yeneen sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne balliqu anni walaw aaya kon sama mission bi jotalal leen ma ko jottali leen ma ko tasaaree leen ma sama yónneen bi euh, donte ne benn aaya la sax nga fexe ba ay nit dégg ko bu ko kenn ku nekk defee lépp dina tasaaroo lillahi alhamdu kon ñu ngi sukkandiku ci loolu yal na yàlla jàppale ko ci jàppale ci borom këram bi nga xamee li ñuy wax ne bu feccum liir neexee nday jaa jàpp ci waggee kon euh, lépp mooy itam euh, ak borom këram ndax bu fekkoon ne daf ko ne carrément kër gi laa la yem la wala ci liggéey kër gi wala nangam ak am na ñoo xamee ne wax dëgg yàlla mat naa ci seere soxna soo xamee tey jii eh, ka ko takk daf ko dafa diggante woon ak moom ne fexee ba takk ko daal ko nag eh, njàngale moom da bàyyi bisu keroog bun nga soxna si ñu dem kaw dig mu mujj mu naan léegi mën naa ko bàyyi soxna si de mukk buum bi tey moom du fanaan fi dem na ba xalaat lii di ko wax ëllëg ki si biir mën naa dem ba ma jaboot mu mu mu jekk daal di may xañ sama yoonu jaamu yàlla du ma ko nangu ñu wax wax soxna suñu bay buum bi day dee ba buum ga dañ fa li ne ka ko yor eh, bokk ci tànnee fi far léegi yàlla jox ko keneen koy bokk si yàlla dogal mu far bokk ci ñi nga xamee ne dañoo euh, jàngale état bi di leen fay far ñi nga xamee ne bu retraité woon sax tey ji euh, soldam day dox comme lii itam bokk li nga xamee képp ku ci nekkoon def saw ñaq tey ji boo retraité euh, loolu day dox kon daal ñu ngi santaat soxna Jaara di ko ñaanal yàlla waaye nag di sant kilifa yi nga xamee ne ñoo fi nekk rawatina sëñ Ahmed li nga xamee ne moom lañ fi xoole sëriñ bi moo nekk fi di ko xelal di ko xalaatal eh, di ko jubbanti di ko gàgganti saa bu amee jafe-jafe eh, bu eh, jullee takkusaan ba ak kiyam dem waxtaan ak moom mu joyantiwaat ko soxna si nekk fi di dem ak dikk ci rajo yeeg yi demee nekk noonu di ci tasaare xam-xamu diini wallaahi alhamdu loolu ak cant la yal na yàlla jàppale ko ci jàppale ci waa dëkk bi ñëpp ndax gis nañ ne waa dëkk bi ñëpp dañoo mobilisé wu takk seen i ndigg ñëw seen xel ak seen xalaat ak seen dool yëpp ñi di ko ci jàpp di ko ci jàpp ba lii egg mhm. euh, kon njëriñal ñëpp la yàlla yàlla boolem ñëpp ku ñu bokk ci jëriñu yàlla yàggal fi nit ñi lool yàggal fi jaboot bi wéral cëri bi xormate rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquran karim lépp luñ fi jàngee ci alquran karim yal ko yàlla def tiyaaba ci boolem képp koo xam ne yaa ngi ci biir dëkk bi wala nga amoon yéene ci ci bërëb béréb taxaw wala nga amoon yéene ci soxna si liggéey bu rëy bi yàlla yàlla boole ci tiyaaba yooyu kàddu yi xam naa ne noonu bëggoon nañu kii waaye Euh, suñu xol a sedd ndax wax dëgg yàlla lii bu amee euh, te te ñuy ñuy tudd di di tudd lool wax dëgg yàlla suñu xol dafay sedd guy euh, ñoo ngi jaajëfal ñëpp di leen jéggul ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci coono di leen xamal ne lii moom moom lañu am mën a maanaam lu mel ne jàkka ñu taxawale ko jàkka moom kenn ku ne xam ne ne mbirum suñu boroom la moom daara ji ñooyam daara moom kenn moomu ko alxuraan moo ko moom alxuraan yi suñu borom moo ko moom kon bu ñu ko bokkee taxaw ba mu mel nii yi ci tudd di ci tudd soxna jaara kon sant yàlla la ginaaw lool nak soxna jaar yi maa koy sant bu baax ndax dib bima ma koy jëlee seen kër ba tey ci li mu nekk ci laa ko fekk kon yaakaar naa man jàppale ko ci rek laa man waa bi mënu ma cee def lu dul ko ndax ni soo ko fekkee la mu nekk nga bëgg ko ci ba di ko ci sa kër loo mënoon ci jàppale ko rek war a dolli kon maa ngi koy sant bu baax ci kanam mbooloo bi di gërëm di ko ñaanal yàlla liggéey bi suñu borom jàppale ko ci ba mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale ginnaaw loolu nag maa ngi sant waa dëkk bi ki ci mag ba ki ci gën a ndaw ndax taxawaay bi ñu taxaw wax di yàlla rafet na lool kon ñi ngi leen sant sant bu ko xam ne am na tàmbali am tubi yemukaay di ci jiital sunu waajur yi ak sunu mag ji ab ab jëm mii lépp lu ma nekk suba ba ngoon ma nga kon maa ngi koy seeral it waa dëkk bi yëpp ak sunu sang yi fi toog wax dëgg yàlla daal sama xol moo tooy wante cant daal maa ngi koy ameel ñëpp di ñaan yàlla ñëpp baal maaq maa ngi baal ñëpp liggéey bi daal ñoo ngi ñaan képp ku fi teew nga ñaanal soxna si yàlla kàttanal ko ba li mu bëgg màggale ko te ñëpp fekkee ci barke alxuraan bi tax ñuy def kon jërëjëf sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp sunu mbokk yi nag bàyyi sa ñoom ñi ak bàyyi taala ñi ñoom it ngi leen sant bu baax ndax depuis ban tegee xeer yi ba tey saa su ne seen xel ak seen xalaat ñu ngi ci comme ni ko sëñ Amady di taxawoo bis bu fa demee lu jotaay ba gàtt gàtt sañ siir mii dana ma wax ni ñu koy gën a jàppee dana ma wax ni ñu koy gën a bëgge koy loolu maa ngi leen koy seeral bu baax saña mel mu wax di yàlla ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ndax ñun sikkuñu ne bu fi yàggee lu ñu bëgg daañu ko am kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi jéggul ci kàddu yi nag ndax suñu kilifa rek moo ci nekk moo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah Anda xam ni sama sëriñ soxna jaar ci fam, ci kilifaam suñu mbay loolu yang fekk fii ñi ko waxee rek mbay ñu koy waa dëkk mag mam mam ngi doon sen seen mam mataar mi ci penc mi tey jii ñu wax ñoom la lay suñu ñu jàkkaarlu moom moo yor kilifteefu dëkk bi ñu doon jàng alxuraan gi suñuy dëkkandoo nga xam ne benn dëkk la ñu fiy jàng ci alxuraan la ñu ciy dimbali ñu taxawee nag koo xam ne kenn mënuñu faawu ngir rafet mu mel ni jotaay bi jotaay bi matale la. ñu mm-hmm. sant yàlla bu baax ndax biñ fi teg xeer bi ñu ñoo ko àndoo. Mm-hmm. loolu nag day mm-hmm. wax ñi daan xam ne yàlla moo alxuraan la moom. xam nga ni ñu koy waxee ñun ñun mbirum soxna jaara ñu mbirum Babacar waaye waa dëkk bi lañ ko defal Oustaz wax na mo li waroon na di tabax juma lain lañ waroon wax mooy nañ tabax daara ba noppi su boobaa ndaw dina mën a jàng génn xam ne moo tax yonent bi ne woon nañuy njëkk a tabax ay daara jox leen teg ay juma bu ngeen tabaxee juma mu am leen daara ba ngeen am jafe-jafe yi ci maam jafe-jafe yi noonu waaye bu daara jiitoon da ngeen ami imaam am nodd def te juma taxawagul kon nag dëkk bi ñoo ko moom bu ko defee nag waa dëkk bi seeni doom rek moo fi mën a jàngi danaa wax mu ci kàddu maam yàlla loolu ay doomam rek mën naa toog ci néegam wala ci taatu garab gi te leen li yàlla def ci moom te mu doyloo ko lool nag mu def ko ci ñoom waaye nag suñ Tuubaa dafa waxoon ni muy alxuraan di xam-xam daa am ñeenti saat saa ci jubloo ngir am ci tiyaab benn nañ ci dañ ak réer ñaareel bi naful xalq si jëlaat moom ñu ci jëriñ bi suñu borom ñetteel ba nan ko dundal waraayu alamalu ñeenteel ba mooy nga di ko jëfe mooy fi mu la gis rek say yëngu ak loolu wàcc na ci mi ngi ci yoon bi mi ngi ci yoon bi li des nag mooy nañ nañ koy sàmm nit mooy dimbali moroomam nitam mhm. ci bëgg-bëgg mhm. sàmm bu bëggee sàmm te am ko joxe jur mhm. du mën a sàmm jàngalekat dooleem mooy ay élève mooy ay donga dooleem mooy ay donga te nag ñun am na am na gis-gis bu gàtt boo xam ne xam naa du gaaw a dugg ci mooy ndaw mi alxuraan moo war a jiitu ci moom safran moo war jitu jiitu ci moom kenn nit rek soo ko defee defal nga ab seegal waaye ba léegi nag suñu xel day fàtt moom ñun loolu mënut mënut dugg suñu bopp moom maa ngi koy misaal démb man leen suñu demee ci classe français bi nii classe bi njëkk ba ca topp man nga caa ko am fukki at ak ñaar wala fukki at ak ñett kooku noonu nit bu amee juróom-ñaari at mën nga koo dem jàngal alxuraan mokk ko ñëw fekk ko ca classe boobu noonu mm-hmm. pour wax ne alxuraan mooy jiitu waaye loolu bu gaaw dugg suñu bopp mm-hmm. seytaane mën na ci ba am da nga naan daal bu dem bu dem ci daal day tardé mm-hmm. naa ko jël yóbbu ci français bi wala ma boole waaye bu ñu yàlla du juum yàlla du juum dañu moom yónnante seeni doom bu ñaari at na ngeen ngeen jàngal alxuraan bu ñu ca tegee ñaari at ñu yar leen bu ñu defee juróom-ñaari at ñu jàng xamal leen àddina bi parce que juróom-ñaari at ñu na leen ko jàngal nit mënu see def dara lu mu jàngi da leen lu mu ci def day perte rek waaye ñun ba léegi nag mënuñoo toog suñu kër xalaat ni xale bi daal am na juróom-ñaari at yonent bi nee na woon nañ ko dugal mu jàng bu demee jàng noonu na am ñeenti at sax léegi programme yu baax yi du ko fa def nit dina jàng am xam ba ñëw nga xool ko xam ne kii boo ko joxoon ku fa mun def kii dañ leen ko yóbbu ci daara ji. Mm-hmm. mu fekk jàng na ba mokkal waaw mm-hmm. même bu dee defi métier day sonn waaye du ko gaaw ndax ci mm-hmm. jàng la toll. waaye ñun suñu xel ci àdduna bëgg ñoo ndax bëgg ñoo jay ba. nit ki dañ koy yàkkam ci lu àdduna. fekk daa am fu war a jaar. loo xam àdduna. am fu war a jaar loo xam àdduna. du la tardeel dara ndax boo demee ci école yii. amul benn njàng bu bon. Cheikh Mbacke Mbacke daan wax ni mm-hmm. amul benn njàng mu bon xaw ma moo baaxul daan mm-hmm. buñ toogee si jotaay ki jàng ak lu mu mën di jàng lu bokk ak ki jëmul mm-hmm. ak mën di waaye nag li war a jiit na jiit si jullit li war a jiit na jiit mooy alxuraan bi karim loolu nag ba léegi duñ ci bàyyi xel daal waaye war nañ cee xalaataat suñ bopp xam ne ay jullit dañ suñuy suñuy doom lañ war a njëkk a jàng mooy alxuraanul karim suñ la defee leneen lu ci des nag dana yomb ndax dama wax ni gën dara gënta gënta ci kiis xel neex tàmm di baax loolu mu gën gën koo gaaw ci kiis nit ku dugg sa bopp amul dara lu lay jafe waaw baax raba naa nekk sa bopp mënoo am kiis bu ko gën a bu gën a bu gën yomb te booy xool ci école yi yi yi gis nii li jóge si alxuraan yi dañ leen di tëral nga xam ne leen fa ndaw ñi jiitoon bu nekkee dañ leen di bàyyi ci foofu yóbbu leen fa nga xam ne moo leen raw. Ah, waaw ndax xel mi leen yàlla yàlla yàlla leen jiit nañu ko. man de bi may jàng toppatoo ko. jógee ko ah. loo jàng nañu xam. mënoon daan joxe cours ci ci Darou Moukhty. bi ma tàmbali la soxla xam naa nekk fii nii bu dee su di jàng moom sa bopp rek ana bi ana bi jëlu ko def am saswika arab lu moom ci moom la la la la la la bàyyi jàng école ndax dañuy xool ba mu daan ni sëñ su dee xam-xam rek nga gis rek nga suuf sa ci ci magasin bi mais fii xam-xam ne Hollande moo fi nekk. Hollande moo nekk. na mu war a am war a jiit. waaye ñun nag moom suñu xel day fàttu ba léegi. dëgg la doomi daara jaa ngi fii nii. waaye ku ci dogu woon. génnee sa doom ne ne ne jox ko soxna Jaara ne ko guddeeg bëccëg ne jàng su ko defee ñetti ak ñaari at wallahi ag yi mu am ci lu mu bëgg dem jàng alxuraan waaye duñ ko def nag ndax ndax ndax ndax ndax suñu xel yi day fat école yi war a tuuba waaw suñu xel lay fat ndongo daara yi ñoo ci mën Alhamdulillah. Amin. 对。 def su ma tabbi aljana man Serigne Touba day amut fi ci man ku ko am na dem fa mu am waye fi amut fi kon. mbay maam jaara mbay ku sopp soxna jaara rek nga tàcc ko tàcc mu ko mag ak ndaw fafu liggéey jàkk yaa waral ñëpp jàkk baykat nga bayu mel ne waa bay ko ak waa saw ñëpp ko ñu nekk sa liggéey Seyda maam jaara egsi kon turandoo yaa Seyda kon maam jaara mbay euh, bismillah bul jëndee sa adduna ji alaxira jee nga jëm ndax képp koo xamee ne def nga ko bu ëllëgee di nga rëccu ndeysaan kon daal adduna buum la jaral ñàkk alaxira kon daal na nga ci adduna eh, ba mel ne doo fi jóg waaye nag na ko bàyyi xel ba nga mel ne eh, suba nga war dem noonu la ko yeneen bi sallallahu alayhi wa di santaane eh, tey rafet njort ndax eh, inna allaha inda zununi abidihi yàlla mi ngi fi koy jotte mbir mi kon sëriñ Moustapha Fall la ñuy tàggoo Ndeye Marème Ndiaye bismillah Ndeye Marème Ndiaye nag peut-être ko moom bokk ba mu ne ci mu ne jigéen dafay yaru yiw weexi wax bañee weex rafetrekat jik ko moom ba xam ne tim ci kër dafay muñe kay buñ lekka sàmm borom agal boromam te am njën jiitu ak maatam macha allah soxna Ndeye Marème Ndiaye egsi na Ndeye Marème Ndiaye Ndiaye nag sant moom xam naa ku bëgg ceeb la Ndeye Marème Ndeye Marème xanaa bëgg nga mburu ñaata mburu ngay nekkee

صدق الله العظيم sur